413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak Sunugal 24 Actu 24 dellusiwaat na comme niñ koy baaxoo di def àllarba bu yàlla sàkk. tey nag ñu fa yéene waxtaanee lu nga xamante ne àddina bépp mën nañu moom la waxtaanee Sénégal gépp di kuur feu ak état d'urgence bi nga xam ne Macky jël na ko ni kiy fi nga xam ne fépp mooy Séné mooy Dakar ak cees bu ñu jógee ci couvre foofu dinañu wax ci leve de fonds bi nga xamante ne Ousmane Sonko mu ngi ko doon yëkkati te mu jur coow ba ministre de l'intérieur daal di def ab communiqué di ko di ci artu comme ni ma ko baaxoo di defal ay bés bu nekk dama ci ànd ak Aliou Top moom taskatu xibaar la waaye tamit di xeltukat Aliou ma bàyyi la nga nuyu ak ñi ñuy suivre. jërëjëf Moustapha di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan Sunugal 24 point net rawatina programme bi nga xamante ni moom la ñu tuddee Actu 24. di waxtaanee ci ay ponk yu nga xamante ni lu soxal actualité la moo xam fii ci réew mi wala ci bitim réew saa su ne comme ni nga koy waxee di ci feggoo ak yow di si jéem a indi it suñu xalaat ci li nga xamante ni moom mooy ñeel yooyu actualité. Mhm. état d'urgence acte la ñuy wax. parce que defoon nañ ko mois de mars indiwaat nañ ko alors mu bëri nag ñi poser question pertinance su état d'urgence bi ak état d'urgence partielle bi mu jël yemale ko ci Ndakaaru ak Thiès ñu bëri ñu ngi poser ay questions indi ko vingt une heures te ba le ba ñuy door bu ñu fàttali ko vingt heures la dooree woon. Mm-hmm. alors bi mu annoncé état d'urgence bi ndax bett na la d'abord. alors euh, lu ma bett la quand même Moustapha parce que mosuma ko woon xaar. ndax euh, question bi ñëpp di posé moo tax mu bett ma lan mooy pertinence su euh, def état d'urgence surtout si ñaari gox yi nga xamante nii moom mooy euh, Thiès ak Dakar naam ñaari gox yi sax mën nañu am argument yi di wax lu tax ñu war fi def couvre-feu bi parce que si évaluation yi na nañu ñaari raison yooyu noonu moom si la mbas mi gën a bëri maanaam à quatre-vingt-dix pour cent wu ñi nga xamante ni ñoom ñoo am feebar bi Hmm, fi la ñu nekk mais di koy justifier aussi lu yomb la mooy kan yi densité wu région yooyu ñoom ñoo gën a aussi ëpp ay nit fi la activité yi gën a bëre fi la demlante beeg diklante bi ëppee mais man gisuma mu am benn pertinance parce que déjà euh, bi ñu ko njëkkee def si jamono ña ñu ko defee woon feebar bi dafa doon gën di wéy di law alors lan mooy euh, tax ñu war a tënk nit ñi si ñu ñàkk dem ak dikk à partir de vingt et une heures et que naturellement ci genre yooyu ñu tudd moo xam Dakar Thiès wala Sénégal moom actuel ak foo mënti nag guddi gi euh, activités yi dañuy ralentir à part nga xamante ni dañoo am ay liggéeyu guddi. surtout ak seddaay bi seddaay bi nii mm-hmm. donc nit ñi duñu duñu génn. alors xaw ma nag ci yan base la ñu sukkandiku bu war a tax ñu def loolu mais jàpp naa ne. dana doon gën a pertinent bu ñu jëloon yeneen mesures yi nga xamante ni ñoom ñoo jiitu yooyu ndax nañu ko defee woon bu njëkk bala ñu def état d'urgence dafa am ñu nga xamante ni dañu ko tere woon maanaam transport bi boo xoolee boo duggee ci car na muy feesee tànculanto bi ak yu noonu foofu rek feebar bi mën na faa law te loolu boo koy gis bëccëg nga koy faral di gis donc bokkul ci interdiction yi nga xamante ni ñoom jël nañu ko bus tata yi loolu it lii marché yi boo xoolee ci acte 1 bi dafa am yu bëri yu nga xamante ni nañ ko waxoon mais mujj ñu ko def mooy que ni chaque weekend dañu war a nettoyer marché yi ñu xool def la ba nga xamante ni jàngoro bi du man di law ñuy def ay ouverture partielle yooyu noonu mujj ko def respecté ñu ko li nga xamante ni moom mooy transport bi également ñu respecté mesures yi ci biir transport yi ndax boo xoolee transport fii ni muy doxee Sénégal moom mooy moyen bi nga xamante ni mën na yóbbu lu gën a gaaw euh, virus bi mm-hmm. si gox goxaan yëpp parce que ci oto bi nga xamante ni moom la ñuy dugg ñun ñëpp bu kenn ku si nekk day joxe si ay gox yu wuute bu ñu fa wàccee si kenn ku si nekk dem ci ay gox yu wuute je pense que ni dana doon gën a am solo gën a pertinent que ñu jëloon ay mesures dakkal euh, tàncolanto bi ci gox yo ci ci barab yooyu euh, marché yi nga xamante ni fa la ñëpp di dajee également ñu jéem a def ba nga xamante ni gars dinañ respecter mesures yi maintenant bu ñu à part acte acte acte bon à part couvre-feu bii nii lan la état bu Sénégal def ci li nga xamante ni moom mooy deuxième vague bi à part toog euh, ci kanamu caméra yi Euh, topp site web yi di di di joxe information di wax que ne affaire bi lëree grave nañu moytandiku amul benn act bu nga xamante ni teg nañu ko bu war a tax nit ñi jàpp ne kat deuxième vague bi ñu tudd lu grave la te moom mu ngi continuer di rey naam lu grave la parce que gis nañu ne. Euh, chiffres yi ñu ngi yokk chaque jour mm-hmm. euh, taux de euh, mortalité bi également mu ngi gën di yokk kilifa yu bëri génn fii sarte président de la république mooy ki nga xamante ni moo ëpp information si lépp daf na réunion d'urgence am ak mm-hmm. ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci wàllu googu wan nañ ko nekk mbir mi fi mu toll nii dafa graaw mais <laughs> mesure idoine yi ñu war a jël laa jàpp ne moom la ñu tegakul ngir ñu freiner li nga xam jàpp ne daal dafa des ba tey daal couvre-feu bi nii amul lenn lu nga xamante ni bala nga ko xam ne amul benn pertinence mooy douze jours yi nga xamante ni joxe nañu ko mu jeex mhm. beneen bi ci topp mooy ndax yoon may na ko président bi wala may ko ko ndax bul fàtte ni première euh, couvre-feu beeg état d'urgence bi dañu jaaroon assemblée nationale ñu mayoon ko benn période bu nga xamante ni période boobu noonu mënoon na ko ci def na mu ko waroon defee. ma jàpp ne bii it nag bu ko waroon defit it la ko yoon mayuloon bu njëkk mayaatuwul ko ko donc dafa am fu nga xamante ni waroon na ko fa jaar naam mooy président de la république moo gën a xam li nga xamante ni moom moo gën a yell si sàmm askanam parce que aussi loolu bokk na si li nga xamante ni moom lañ ko falee mais defin nga ak période yi. ak façon bi loolu lu am solo la parce que bu dee nit daf la dënk boppam ne la defal ma lii mu gis ne li nga def nii amoon na leneen lu ko ëppoon njëriñ ci xeex li nga xamante ni moom mooy li fi am et que defoo ko nga bàyyi ko fa ñëw si li nga xamante ni naturellement. 21h mhm. man ak yow. day wax en tout cas du ñu génn 21h. loolu nga tey ñoo génn 21h donc du problème. du du bëri ñu ah. du bëri ñoo gis ci mbedd mais mais bu ñu ah. dellu si waatee ba tey li waral ñu jël mesure bi. Mhm. dañu xam la ne Dakar ak Thiès dañoo totaliser boo mu ci 90 pour cent cas yi. Mhm. cas yi Dakar ak Thiès la ñu nekk ba tax na ñu def euh, couvre-feu partiel boobu noonu ci Dakar ak Thiès est-ce que loolu tamit warul warul wane pertinence bi. alors moom juñu naa la ko si. si samay argument tout à mooy que ni densité wu ñaari région yooyu noonu moom mooy justifier également lu tax euh, mbas mi gën fee bëri te que euh, mbas mi aussi si Sénégal Dakar mooy porte d'entrée bi euh, dakaar ak Thiès quoi parce que aéroport la jaaree aéroport bi mu ngi Thiès. donc bu nit ñi jógee foofu noonu dañuy ñëw naturellement Dakar. donc fa la mbir yi commencé di amee muy commencé se di law nit ñi fa la ñuy gën di jokkalante fépp fu waay nekk ci ci ci Sénégal munoo xëy benn jour amul ku jóge benn dakaar dem ci benn région si ci ci réew mi. doo mën a am benn jour bu nga xamante ni di nga xëyee quatorze régions Sénégal yëpp amul ku fa jóge ñëw biir Dakar donc dakaar moom mooy centraliser lépp. léegi ginnaaw ci boobu noonu bala ngaa defaat beneen couvre-feu wala état d'urgence da ngay évaluer eh, lan mooy pertinence su état d'urgence ak couvre-feu bi nga xamante ni njëkkoon nga ko def mais boo defee évaluation yi da ngay gis ne amul benn raison Sénégal wala defaat couvre-feu wala état d'urgence. mais mais bu ñu deful couvre-feu la la war a def donc. parce que yaakaar nañ ni solution la man jàpp naa ne. Mhm. bu dee dem nañu ba nga xamante ni fukki fan ak ñaar yooyu noonu ñu jël ne dañ ciy def couvre-feu ak état d'urgence ci ñaari raison yi nii jàppoon naa ne defoon ci benn confinement partiel moo ëppoon pertinence que ñu def loolu ndonte loolu day gën a nit ñi amuñu luñ lekk d'accord moom ndonte loolu moo gën a métti moo ëpp pertinence parce bu dee da nga bëgg euh, lawinu feebar bi la mais bu dee da ñuy bàyyi de 6 du matin à 21 suñu soxla saa ñu respecter mesure barrières yi transport en commun bi di fees dell comme nam na marché yi di fees dell amul benn euh, Euh, respect de mesures barrières amul benn mesure bu nga xamante état bi teg na pour nit ñi bu ñu ñëwee ñu mën di raxasu amul ay masques yu nga xamante ni joxe na ko askan wi ñu ngi gën di sonn amul benn possibilité bu nga xamante ni jox nañ leen ko pour ñu mën a respecter mesures barrières yooyu noonu lu dul wax leen à partir de vingt une heures amoo leen droit génn ba euh, ba six heures du matin jàpp ma ni loolu war na mën a freiner li nga xamante ni moom mooy état d'urgence bi bu fekkee nag que ni ñoom dañu jàpp que ni de vingt une heure ba six du matin moom la jàngoro ji jox mais alhamdulilah boobaa ñu jël mesure yooyu noonu mais que dañu évaluer gis ne première couvre-feu bi période bi ñu koy jël mais boobu jàngoro ji lawul woon mais bi ñu ko jëlee mais 79 cas la ñu amoon mm. léegi bi ñu fa jógee ñu gis ne affaire yi day gën di yokk ba bi ñu koy bàyyi jamono ji ñu bàyyi couvre-feu c'est la ñu ëppoon ay cas que période bi nga xamante ni. Euh, defar nañu acte bi mm. maintenant bu fekkee beneen argument la pour euh, wane na gars yi affaire bi lu garaaw la vaccination bi mënul ñàkk. mais foofu laa doon bëgg ñëw sax <laughs> mi ngi ko <laughs> doon wax président Macky Sall xam nga nit ñi juróon na coow. Mm-hmm. mi ngi doon euh, artu sax wala di wax ñi naan du ñu vacciné nañ bàyyi wax jooju. Mm-hmm. mi ngi sas ñi nga xam mooy ministère bi ak mm-hmm. naka la ñuy def ba ba ba vacciné bu vaccin bi ñëwee fii Sénégal. kon mel ni coowal dañuy vacciné wala duñu mi ngi suñu ginnaaw léegi. waaye naka la ñuy vacciné woo mooy. mooy mooy solution bi parce que fi mu toll nii moom teg nañu acte ya parce que bu ñu demee ba nga xamante la tënk nit ñëpp. suñu ñàkk dem ñàkk dikk te pour ñu génn ci loolu il faut ñu vacciner wu te xam nañu ne tënk nit ñi suñu ñàkk dem ña yooyu day da indi gàllankoor lu bëri non seulement ci biir famille yi mais ci économie wu réew mi donc vaccination moom mënul ñàkk. vaccin bi man lenn rek laa ci mën a wax naam euh, jàpp nañu ne durée bi nga xamante ni si lañu ñu caytu mbir yi pour def ko. du durée moo xamante ni moom ci temps normal moom la ñuy def. Mhm. mais dama jàpp ne situation bi nu mu mel moo ni waral moo tax prex prexe bi xaw ko xaw ci am. naam euh, bu dee am na ay gàllankoor yu nga xamante ni dina ko indi it amaana am na ay avantages yu nga xamante ni mën na ko indi bu dee à quatre-vingt pour cent euh, vaccin boobu noonu day indi solution si si problème bi jàpp naa ne war nañu mën a xool méthode bi gën pour xamale nit ñi lan mooy avantage yi nga xamante ni moom. mooy moo nekk ci vaccin boobu ku nga xamante ni dal na sa xel ku ne nga dem jëli vaccin boobu noonu ngir nga man di continuer di def say activité ak yeneen naam mm, première test yi moom daanaka nañu jàppee ñooñu mm-hmm. comme ay cobaye waaw su ko defee mën nañu gis mais à chaque fois bu ñu gisee lu nga xamante ni am na ci dysfonctionnement ci euh, mm-hmm. vaccin boobu noonu dinañu ko corriger ñu fexe aussi préparer ñi nga xamante ni ñoom ñooy jëli vaccin boobu noonu ñu jéem a aussi am étude ñu nga xamante ni au moins euh, bu euh, parfait wul à cent pour cent aussi dina xam ne lii ngaañ bi du bëri bëri mm-hmm. trop ba nga xamante ni bu fi ñëwee ñu ju ko jëlit du ñu lii te it ñoom it ñu am mat gu toll ni dinañu fexe ba jël vaccin bi nga xamante ni moom moo gën ñàkk jël vaccin bu nga xamante ni ak loraange la ñuy jural lu lu bëri et puis jéem aussi impliqué suñu spécialistes yi ci recherche yooyu noonu lépp lu nga xamante ni jël nañ ko di ko dugal ci yaramu doomu aadama yi ñu saytuwaat ko bu baax a baax ndax kat doomu aadama surtout suñu réew mi xam na ay ndaw ñoo ci ëpp ñoom ñooy ëllëgu réew mi donc lépp lu ñuy def ci seen yaram jàpp naa ne war nañ ko maa ngi gis démb Thierno Bocoum mu ne ci logique boobu ñu nekk mhm. président Macky Sall ak gouvernement ñoo ñoo waroon njëkk a vacciné wu pour mu doon pédagogie par l'exemple euh, euh, mais naturellement man jàpp naa ne Macky moo war a nekk ki nga xamante ni moo njëkk a jël vaccin bi léegi beneen question. bi comme ni mu ko defee ni mu ko defee mais beneen question bi nit ñëpp di posé mooy est-ce vaccin bi nga xamante ni moom. lañ koy piqué moom lañ ñuy piqué askan mais mais jàpp naa ne. Mhm. Euh, am na mat gu toll ni du nangu mukk gaa yi di jël askanam. di leen euh, di leen asaaloo noonu rek. di mm-hmm. leen dugal euh, seen yaram lu leen naax et puis moom tamit kon daal am nga am nga confiance. am vaccin bu fiy dugg lu baax lay jàpp naa ne suñu ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci wàllu médecine fii ci Sénégal am na ñu mat gu toll nii. Euh, dinañu am fula fayda nga xamante ni vaccin bi ñuy indi Sénégal dina nekk bi nga xamante ni bu gën la et que pour mm. euh, Macky Sall aussi gën a nit ñi moom ak gouvernement am jàpp naa ne bés bu nga xamante ni vaccin bi ñëw na ñoom ñoo war a njëkk a rang comme na woon ca carte d'identité ya mm-hmm. njëkk a wut carte bokk na si ñi nga xamante ni ñooy tàllal njëkk tàllal loxoom ñu tout cas moom la mooy ñu bañ ko aussi def affaire de forcing euh, piqûre ñëpp ku nga xamante aussi dalul sax xel. ñu bàyyi ko personnel médical bi la dooree après ak ñi xam dañu am ay comorbidité ñu am yenn jàngoro yi nga xam ne bu ci corona duggee rek. Mm. mën na leen sànq cest ñi ko gën a soxla. ñoom ñoom la ñuy dooree laataa ñoo jox ñeneen ñi nga xamante ne soxla ñu ko noonu mën nañoo wax loolu. Mm. ñu dugg ci suñu deuxième point waxtaan bi mooy li nga xam ne tamit euh, occupé woon na actualité bu baax a baax mooy mbirum levée de fonds ah, nemmeeku tour bi nga xam ne waa Pastef ñoo ko lancé woon te ñu ubbi woon kees yi ku nekk commencé sotti dugal. Mm-hmm. ministre de l' intérieur daal di géey daggee ca langa ja ak sifleem ne leen a dàkk. <laughs> donc mu doon loo xam ne daal ñu bëri jàpp nañ ne singali la encore une fois. yow yaa ngi ko doon suivre gis nga affaire bi ak coow li mu jur lépp ku nekk di wax. opposition bi taxawee fii ñële wax ba Antoine dégg ci lu nekk moom tamit. Mm-hmm. alors loolu lan la lay noo ko noo ko noo koy gisee. alors euh, yooyu il faudra ñu rappeler lu bëri ci ci ci loi bi comme moom ci loi bi la référé wu euh, que ni moom mooy trait ñu def appel à fonds levée de fonds yooyu noonu di jóge ca bitim réew dañuy bañ loi bi day bañ ñi nekk. ñu jóge bitim réew di financer fii euh, di financer waa biir réew. mais ñu jàpp que ni loolu loi la moo xamante ni yàgg na te entre temps lu bëri. soppi nañ ko 1981 la woon. Mm-hmm. boobu les sénégalais de l' extérieur je pense que ni amuñu woon. doonuñu woon voté di voté te fi mu toll nii soppeeku na ba nga xamante ni sax les sénégalais de l' extérieur am nañu 15 députés yoo xamante ni mm-hmm. ñoom ñoo leen di représenté euh, fële ci assemblée nationale président bi nga xamante ni moom moo fi nekk actuellement nii moom moo ne euh, diaspora bi mooy 15e raison bu Sénégal. donc nekkatul une affaire de euh, fonds yu jógee bitim réew ñëw dugg ci biir réew mi mais doomu réew mi la ñuy financer euh, parti bu nga xamante ni ci biir réew mi la nekk parce que ñoom tamit ni nga xamante ni noonu la sénégalais bi dundee sa Sénégal amee droit même gëdd boobu noonu président pour mu jox leen ko moo tax mu yemale cër yëpp si ñoom ñëpp alors léegi je pense que ni amul. Euh, lenn lu nga xamante ni war na ko mën a euh, traiter à moins que ñu war a revoiraat loi yi nga xamante ni si lañuy sukkandiku ngir daganal yenn yi wala euh, traiter yenn yi ci rappel président Macky Sall moom ci boppam wax na ko ne ay waa diaspora yi li ñu ko financé bëri na gis nañu fi Khalifa Sall également caution am ay nit cotisé. diaspora bi cotisé nañu ci diaspora bi cotisé nañu. jàpp naa ne Pastef aussi ak fi ñu toll période bii nii au vingt et unième siècle ak xarala yu bees yi ñu def ko ak transparence bu nu mel ubbi ne dañuy def euh, benn levée de fonds nga xam kan moo dugal fan la nekk ak ban compte la ko jaarale je pense que ne amul benn mal pour ñu ñu ñu mën ko accepter mais eh, bu doon am na ay manquement ñu gën ko recadrer wax ko ne ko bu dee da ngay def euh, lever de fond ci côté digital ba yooyu plafond bi lii la waroo ko mën a romb mm-hmm. bu fekkee dañ koy encadre mais nag soo amee adversaire bu nga xamante ni dafa mel ni Ousmane Sonko. Mm-hmm. am euh, lu bëri lu nga xamante ni daf ko nekk en avant ci yow. xam nga président wala parti au pouvoir bi ñu fi ñëwee ba léegi xarala yu bees yooyu ñoom dañ ci dañ ci vraiment may des ginnaaw lu bëree bari moo tax saa su ko nit utiliser pour def ci yenn yi rek lu leen jaaxal ñoom dañuy dañuy xaw a tiit et puis euh, kuy wax président élection présidentielle laataa élection présidentielle sax dafa am yeneen ay séances yu nga xamante ni daf fi war a jàll te yu am solo lay doon ci ki nga xamante ni dafay war a ñëwaat ci ci bopp réew mi wala ki fa ki nga xamante ni actuellement mooy fi nekk te war a lii mooy élection gox gox gox yi mm-hmm. am na élection législative yu nga xamante ni dafa war a ñëw assemblée nationale ak na mu war a président Macky Sall boo xoolee ci discours 31 euh, euh, décembre bi même jàkkaarloo bi mu doon def ak su suñu naataango yi rappelé na ko ne gars yi dañu jàpp que ni exécutif bi dafa teg loxoom ci lii bi mais il faut nga am doole foofu ngir ngay mën di woyal sa politique. Hmm. loolu mooy wane importance bi nga xamante ni jox nañu ko élection législative yooyu noonu di ñëw te élection yooyu noonu ñoom xam nañu ne bu Ousmane Sonko amee yenn fonds yu koy permettre mu dugg ci gox-goxaan yëpp fu ne mu teg fa tànkam. mën na am groupe parlementaire mais ñoom seen bopp dañu reconnaître ne. Euh, ci élection présidentielle yi bokk na si li leen gën a tax ñu ñàkk mooy amuñu woon représentant ci yenn yenn bureau de vote yi. Mm-hmm. et que loolu noonu pour nga mën ko corriger il faut nga. am ay fonds am ay moyens yu nga xamante ni dina la tax ba bureau de vote fu mu mënti nekk ci réew mi nga am fa représentant mais loolu ay loxoy nan di ko def te fonds yooyu noonu pour nga am ko euh, yu mel noonu rek nga ko mën a def maintenant. lu taxoon nag ñi ne euh, waa bitim réew waruñu dugal seen xaalis si. parti politique nga xamante ni day dagaanu ah, euh, baatu réew mi euh, baatu askan wi mooy que ni dañuy bañ ñu dicté la ñoom it seeni loi maanaam mu am ay protocole yi nga xamante ni da ngeen ko signé avant moom mu lay jox loolu nga tey la suñu réew mi avant yow sax nga yegg si si si réew moom bu ko defee boo ñë ñëwee ci bopp nguur gi lu bëri lu nga xamante ni da koy def malgré malgré yow alors mais bu dee ay sénégalais la yu nga xamante ni ñoom ñoo nakk fépp ci àdduna bi jàpp naa ne war nañu mën a am euh, droit ñoom tamit participer ci euh, politique bu nga xamante ni moom moo am ci réew moo xam ñu financé parti politique la wala yooyu parce que kat parti politique yi jàpp naa ne waa réew mi rek ñoom leen war a mën a financer ñoom rek ñooy défendre intérêt wu mais keneen ko nga xamante ni financé na leneen lu jëm ci Sénégal euh, jàppal ne ay intérêt boppam loolu lañ ci bañ loolu moo tax ba loolu moo tax ministre bi ministre bi daal dina leen le cas de Pastef je pense que nii c'est pas c'est pas le cas parce que deful mm-hmm. appel à fond ci yeneen réew yi wala yeneen homme d'état yi da defewu ko Sénégalais de la diaspora yi la woo de la la te kenn ku si nekk boo dugalee ci plateforme ba nga xamante ni moom la ñu utiliser xam nañu kan moo contribuer ci lan donc loolu je pense que ni am na transparence maintenant ndax parti yi nga xamante ni ñu ngi ci réew mi ñu ngi wàccook charte réew mi wala li nga xamante ni fa lañ leen tënkee ndax ñu ngi def seen état financier à chaque fois di ko déposer au ministère de l' intérieur et cetera et cetera. est-ce que ñoom ñu ngi ko waaw di tenir congrès mm-hmm. yi euh, parfois da gis ne daanaka dafa mel ni turu parti rek moo fi nekk mm-hmm. mais doxalin wa euh, leneen la lu wut ak lu nga xamante ni loolu mooy doxalinu parti politique loolu aussi jàpp naa ne mm, suñu am politique yi war nañ di ko mm-hmm. xool yenn saa yi ñu dem sax ba nga xamante ni dañ ko def seen moomeelu bopp ba ñoom bu ñu fa nekkatulee rek mbir mi day day tas loolu moo xaw jur ay jiixi jaaxa fa nga xamante ni moom mooy PDS. ak yeneen yeneen yeneen parti yu nga xamante ni ah, gars dañ koy wax. kon euh, kon kon est-ce que jàppuñu euh, ni Antoine jom communiqué bi waru ko woon def. alors xam nga communiqué bi ñoom ñoo si perte. tout le temps euh, yenn saa yi ñoom sax dañuy dem nga xamante ni Pastef. day toll ci guuta parce que xam nga temps yële ba Pastef génnee jot na et tu woon na wàcc. Mhm. Mhm. mais fan yi ñoom ñoo gën a. joxaat benn ora Pastef ba nga xamante ni gis nañu ñu bokk ci Pastef ñu occupé woon plateau euh, télé yëpp. mais bien commencé di gën di intéressé wu si Pastef. Mhm. la ñuy doxee ak ay responsable ak façon bi nga xamante ni surtout def nañ ko innovation bi ñu indi ci ay levée de fonds ak yooyu mais da gën a tax nga gën a am xel ka ni waa ji di def xarale yii ni di utiliser lii dénkee réew mi am na yeneen stratégie yu nga xamante ni war na ko mën a def ngir mën a jëmmal dara ci ci réew mi te du ko soxla dem ci ci ci bitim réew ay stratégie la yu nga xamante ni dañ ko war mais parfois boo xoolee ñoom ñooy euh, sax euh, nekk agent marketing agent <laughs> marketing bu Pastef c'est peu un peu dommage pour ñoom mais je pense que ni yooyu war nañ ko mën a xoolaat niñ koy niñ koy defee jooyantiwaat euh, seen stratégie yooyu ak dal gi nga xamante ni moom la ñuy dal tout le temps tout le temps tout le temps mhm. benn parti bi et que au Sénégal il a plus de trois cent et quelques partis et à chaque fois ngay ciblé benn parti rek ci lu mu def. mu ndaw day day nduroog singli mais mais mu am fu ñu terminer rapidement mhm. parce que libaas mu def si ne li ñu amoon ci waxtu daanaka jeex na. Mhm. mooy Ousmane Sonko ba léegi kenn gisu ko mu wax mu jaaxal ñu bëri. mais xam nga stratégie la bu mu commencé adopter depuis depuis parce que ñenn ñi ñooy wax waaw depuis quelque temps stratégie la bu mu commencé di di adopté parce que bi nga xamante ni nommé nañu euh, Idrissa Seck ñu bëri dañu doon wax doon xaar moom mu mhm, génn mhm. mu def off parce que je pense que ni loolu aussi mooy déterminer leadership bu Ousmane Sonko parce que quand tu es un leader. Euh, di euh, séntu sa bopp ci yenn instance yi lu mel ni président de la république nekku na lu jóg lu ne rek da nga ci war a tontu mais lan lu si nekk comme parti la dafa am na muy doxee ña nga xamante ne ñoom ñoo yellool wax jooju da leen di bàyyi moo ñu ñu wax bu dara desul lu dul nag yow ñu war a dégg sa kaddu nga wax kàddu yi nga xamante nii nopp bu ko déglu dina xam ne kii kat la mu wax lu lu mën a de lii la man la meilleure pour moom mhm. waxantu ñooñu parce que aussi bul fàtte que ni euh, silence aussi beneen forme de communication la bu gën a efficace kay yeneen forme de communication yëpp ngay def parce que en communiquant mën nañu def yenn erreur yi nga xamante ni au lieu ñu gis euh, message bi décortiquer ko mais erreur yooyu noonu day ñëw mujjee xam naa waa APR dinañ bàyyi xel ci leçon de communication yi nga joxe comme communicant Euh, ñu lay def lu bu baax a baax ànd bi ñuy ànd ak yow. ci waxtaan bi lan mooy doon sa moo de la alors di euh, invité tous les sénégalais et sénégalaises ñu respecter les mesures barrières ngir ñu mën a xeex li nga xamante ni moom mooy Covid 19 jàngor la bu nga xamante ni mu ngi lëmbee aduna déjà def na atum lëmm bu nga xamante ni aduna bi dara demul mhm. dara dikkul Sénégal nekk ci acte deux bu nga xamante ni couvre-feu la doonte nekkul ci réew mi yëpp mais fexe ba nga xamante ni du yegg ci réew mi yëpp gis nañu la xamante ni juróon na ko couvre couvre boobu noonu ci ginnaaw bi ñu ko defee euh, ci act bu njëkk bi ñu moytandiku yàgg foofu noonu loolu yëpp nag lu yi war a mën a tax duñu fa yàgg mooy kenn ku si nekk jàpp ne moom. mën naa yor feebar bi te mën na ko wàll mën na ko lawal kenn ku si nekk fexe ba feebar bi du lawee ci yow te ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñuy gouvernant ñoom itamit ñu am responsabilité bu toll ni fexe ba nga xamante ni mbas mi dina fi jógee ñu def lépp lu ñu mën ak lu ñu mënul ñu jéem ko ba nga xamante ni feebar bi du continuer di law te la nga xamante ni moom la ñuy wax nit ñi di ko def seen càng cangaat yooyu ñuy euh, dégle euh, ñoom ñu fekk leen sa nañu sangu mala ngaa digle cangaay loolu la ko wolof Njaay di waxee mm-hmm. di jaajëfal képp nga xamante ni yaa ngi ñu doon bàyyi xel fii ci Sunugal 24 point net di la jaajafal yow tamit ci présentation bi ak laaj yu am solo yi